Mm-hmm. sëñ Modou. Uh-huh. aaye wa yansuraka allahu nasran mm-hmm. moom lañuy ñuy waxtaane tey mm-hmm. aaye bi boo demee ci suratul fatxi di nga ko fa fekk. innaa fatax laka fatxan mubinan jaaro bi ñu ngi ko dippee ya ndax xam ngeen rawaan bu ñuy wax Shamsu Xoroshin wala rawaan bu ñuy wax yaa Seydi may dataron moom lañu ko liggéeyee ak leket bu bees xaru benn melo wala ganaar jaaro bi ñuy defar ba noppi ak sikar samo àndal su pare jàppal ni yow ak rawaan yi yéen a ànd mu lay dimbali ci lépp loo bëgg ubbi sa wërsëg jox la bayre dila aar boole ci jaaro bi nag li muy bañ takku ko ba pare ànd ak koo xamante ni takkuloo ko maanaam di njaaloo ko wa ilaa nga am wërsëg bi la yàlla jox doo ci sédd jam yàlla yi maanaam doo partagé jaaro bi nag kenn du ko defar di ko teg ci barab sur commande rek lañ koy defar maanaam da ngay jokkoo ak cabinet Sajaratu Touba moom Serigne maa liggéey mu baax mi ña nga ca Kër Massar terminus 53 bi numéro téléphone bi 77 539 19 04 77 539 19 04 sant nañ leen gërëm leen mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy topp di ñu seetaan ci télévision bu mag bi di STTV ñu amati mbégte ak kontaan te àndaat ak yéen ci beneen jotaay comme niñ ko yàgg defee ñu ànd ak Serigne maa Gueye di borom xam-xam bu mag waaye di nit ku yàlla baaxal ñu fa yéene waxtaanee tey lu am solo di wayen la moom lañ fas yéene waxtaanee ak njëriñ yi ci nekk mm-hmm. waaye danañ waxtaanee tamit li nga xam ne mooy njabar lan lay def ci doomu aadama buñ la njabaree noo koy xamee ak li nga xam ne mooy toj njabar dinañ ci waxtaan duma guddal dama koy jox rek mu nuyoo ngir ñu mën a dugg ci waxtaan bi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay delloo nuyoo sëñ Modou Bara aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi alqudusu fi xaybi lahahut almutajalla bil asma wa sifat fi xadat lahut almaabudu fi aalami almalakut waljabarut wannaasut wasalaatu wasalaamu ala man basata fi hazi maratib alxams wa kullu man amana bihi min aljinni suñ Modou ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di la wax aleykum salaam wa rahmatullahi wa waaye di ndokkeel mbooleem koo xam ne yaa ngi ñu topp ci Secret Touba ci seen mm-hmm. bu mag bi waaye tam ki nga xam ne ñu ngi topp ci TikTok bi ak Facebook bi yëpp mm-hmm. ñu leen ndokkeel bu baax di leen wax ngeen gën di wéy di abonné tey gën di partage vidéo yi incha allahu taala macha allah jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci nuyoo bu tedd boobu di ndokkeel tamit ñi nga xam ni comme ni nga ko waxee rek sunuy internet la ñu ngi ñuy mm-hmm. topp ci YouTube. Mm-hmm. Instagram TikTok ba ci Facebook. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni rek ni ko sëñ bi waxee nañu abonné te partage gën koo mm-hmm. yaatal lu baax dañ koy yaatal. sëriñ bi tey dañuy wax njëkkee ci li nga xamante ni maanaam mooy wàllum ñaan. ndaxte ñu bari dañuy jug di ñaan lu te amaana sax euh, xamuñu dëgg-dëgg njariñu ñaan. tey ci loolu la ñuy ñëw rek ñu def ci benn briefing bu ndaw su ko defee ñu mën a dugg ci waxtaan bi. incha bëri na sax ñu koy ñu koy deflu te xamuñu ko. Mhm. comme ni nga ko waxee. ndax léeg nga gis koo xam ne bu la wooyee sax la wax ay aajo. da gis mu la koy pàcc pàccal. Mhm. waaw sama lii sama laa sama lee te ñaan maanaam mooy ñaan yàlla rek bu aaju aaju bi bu fajoo mhm. léppay faju léppay faju waaw léppay faju macha allah te ñaan aussi comme ni ma koy faral di waxee rek ñaan mooy li nga xamante ne da cee lot nga xam ne amoo ko amoo ko moo tax nga dem di ko wuti. di ko wuti wallaay. bi nga ko wutee tamit. Mhm. da nga ciy ñaanlu maanaam da nga naan ah aajo bi nga tëne ma. Mhm. comme man taal naa loxo yàlla ba sonn wuyuwuma ndem yàlla sax du ñàkk wuyu kenn. Mhm. waaye noonu lañ ko mën a waxee. waaw ah, nga ma jéem a xool koo xam ne jàpp naa ne moom gën a jege wala am nay xam ne. su fa jaaree yàlla ko. nga dem gis ko kooku nag nee nañ mooy ki nga xam ne bi ngay ñëw ci moom sa bët dafa xonk. mooy sëriñ bi. maanaam bu taalib bi di ñëw ci sëriñ bi. wala client bi bu ñëw ci sëriñ bi. Mhm. day ñëw ak bët yu xonk. maanaam jaaxle ko fi indi daal njàkkare. Mhm. nee nañ nag tuufaay bi nga xam ne moom la sëriñ bi yor war ko koo tuuf ngir bët yu weex. Mhm. loolu moo weexal. <laughs> est-ce que <laughs> la. nee bi. daa yor ab tuufaay. mu tuuf ko ko bët yu weex. moo waral ñu ne lii mooy weexal gi weexal gi. ndax moom tamit sëriñ bi loolu mooy sedd xolam. waaye loolu tam mooy faj ay aajoom. dëgg la léegi moom tam mu fas yéene jàkkaarloog yàlla suñu borom. ko asa jàmm bi ñëw na ci man sàkku ak ñaan mhm. seral na sama xool ci nàngam ma bëggoon ko ñaanal ngir aajom faju est-ce de faju ma Allah parce que yow gis nga sëñ Modou dërëm bi ngay jox sëriñ bi mhm. jàppal ne sëriñ bi moomu ko mhm. am na jaamu yàlla yoo xamante ne soit njaboot gi ko yàlla jox la moo war cee mën a faj seen aajo wala am na ñeneen ñu ko yaakaar ñoo xam ne dañuy xëy fëgg bundam di ko di ko laaj dépense di ko laaj nangam nangam léegi moom noonu muy jëlee sa xaalis bi nga xam ne yaa ko jox. di ko waat ci ñooñu. barke boobu moo lay wuy si ba lim la ñaanal day gaaw am. allahu akbar. Mhm. Mhm. loolu nag moo tax ñu bëree bëri xamuñu lan mooy secret bi xam moo tax léeg nga gis ko xam ne day xam secret. Mhm. comme ni may jàngalee secret rek. di bindal boppam ba sonn di sangu du gis dara. du gis dara. fekk ne maanaam comme moom am na lu mu mën a weexalee. te nay naa weexalee. yàlla da koy sanctionné ne ko ah yow comme am nga loo weexale te nang ne ngaa weexale mhm. toppal ci secret yi bind doo ci gis dara <laughs> mhm. <laughs> loolay waral ñu naan saabu du fóot boppam moo tax nag léegi su boobaa mhm. day nga li nga am ak suñu yow nga jël ko jox ko nit ki nga xam ne jàpp nga ne am na lu mu xam ci sa diggante ak sa borom mu ñaanal la yàlla ndax mu barkeel jërëjëf kon ñaan yàlla ngoog waaye sëñ bi ki nga xam ne nag daf maanaam ñaanlu na ba pare maanaam bëgg ay mbiram gën a baax bu dee ndaw boo xamante ni dafa bëgg wërsëg. Mhm. mu yomb ko. Mhm. ba ñëw jàkkaarloog Serigne Malick Guèye. Mhm. lan nga koy jox. waaw man de sëñ Modou. ñi ñëw fii ci man sax mën nañ ma mat nañ ci loolu seere. man boo ñëwee ci cabinet bi balaa ñuy wax xaalis sax dañuy waxtaan. entre humains ay doomu aadama ni ñu war a waxtaanee. laayante biir laayante biir. léeg-léeg nga gis ko xam daan commerce lay def ñëw expliquer ay détails yu bëree ba pare. nga ne ko nag balaa ñuy wax waxi ñaan yow sa commerce bi da nga ko organiser wut a teg la ci yoon. parce que moo nag ñun ku nu ku nu ku nu gën a xam mbirum business. Mhm. bëriwul de. dëgg la parce que man nee naa la yàlla moo dogal ci ñun xam-xam rek. Mhm. ñun ci famille bi ñu bokk. Mhm. famille bi commerce. famille commerce. moo tax même léeg-léeg nit daf may woo sax soxla ci man xalaat yooyu ma teg ko ci yoon boo xam ne macha allah da gis mu daal di dem yoonam. kon loolu xam nañ ci dara. su boobaa nag ci laay doog a nag ji dugg ak yow ci baatin mais Zahir laa njëkk ak yow waxtaan ak yow. Mhm. teg ko ci yoon teg ko ci code daal. waaw ah, nee nag baatin mënu see ñàkk ndax Sénégal moom dëkk dëkk la boo xam ne boo baatinul. Mhm. <laughs> gars yi bëre. <laughs> dal sa kaw tëll sa kaw. Mhm. loolu mooy yëf yi. moo tax su ko defee souvent bu nit ki ñëwee danañ waxtaan danañ xamante ah waaye nag su boobaa dinaa la proposé. ndaw du nay ci yaramam. ndaw du nay ci yaramam da ngay jug ci sa bopp. su boobaa dinaa la proposé lu mel ne Senghor gi ne la def ko. Mhm. ut ko takk ko mu protéger la ndax li muy protéger dafa bëri. maari daal am na ndaw ñoo xam ne macha allah seen buntu ubbeeku woon na bu baax. Mhm. mais na leen a ay njibar yu garaaw yoo xamante ni. Mhm. génn accident di seen tànk am problème wala nangam wala ñu jëkki jékki seen mbir yëpp taxaw. fekk ne euh, tawat bu yàgg doo moo leen téye. dëgg la ndax tey nit tey bu wérul du mën a liggéey. am na ñoo xam tey ñu ngi doon liggéey mais dañoo jékki-jékki place bi ñu doon liggéeyee sañ ñu faa tànk. man gis naa koo xamante mi ngi yor place

incha allah su ko defee tamit euh, bu ma la wutalee protection permanente la nga wut nag ubbeeku. ubbeeku. bëri na ay càngaay ubbeeku yu fi nekk. Mhm. ay xasun mi ngi fi deux cent vingt cinq mille lañ koy liggéey. Mhm. càngaay la boo xam ne kenn mënu ko sangoo di tëju. est a waat allahu taala am na ay càngaay yoo xam ne aussi lu mel ne càngaay cent vingt neuf. cent vingt neuf quarante cinq mille boobu ngi fi. Mhm. am na ñoo xam jaaro yi laa leen di proposé rawaxaan quatre vingt mille wala ma Euh, jaar Adama Yunus deux cent vingt cinq mille soo ko mënee. macha allah wala léeg-léeg tam ma ne la ndomb Zouma soo ko mënee am. Mhm. soixante quinze mille nga wut ko. Mhm. ak yeneen bagage yu fi nekk. bari yu fi nekk yoo xam ne daal maanaam ci yooyu rek lay dox. boo gisee sëñ Modou sax ñu bëgg a def promotion bi. man damaa gëm ne kenn ku nekk nag li nga am ci xam-xam. Mhm. loolu nga mën a participer ci sa développement wu dëkk. dëgg la te man gis naa ndaw ñu bëri. xiirte nañu léegi ci ci entreprendre mhm. naa la man damaa gëm entrepreneuriat dama ko mhm. gëm dëgg la nit ki tàmbalee nii xoolal moo yor cent franc nii mhm. di ko jéem a di ko développé ba mu nekk mille franc mille franc yi jur dix mille dix mille yi jur cent mille cent mille jër un million damaa gëm loolu ci loolu la man loolu rek moo ma neex moom nga xam moo tax souvent su ma gisee ku ciy jéem man tam li ma xam ci xam-xam dinaa ko baaxee moo waral a def information yëpp. dañu am information généraux yi incha allahu ah, taala produit yi fi wàññeeku yëpp. ak mhm. seen i njëg naa leen ko wax. ak yi nga xam ne ñaar boo jëndee ñaar ñu may la benn. Mhm. yu yëpp dinañ dinañ ko leeral. ñi nga xam ne aussi ñi ngi bëgg te amuñu. Mhm. mbir mi gën leen a mën a yomb. macha allah ñi bëgg itam faju ci cabinet bi. naa leen wax yan yoon la jaar. ba mën a faju incha allah te du métti ci ñoom. incha allah kon mu ngi noonu bientôt rek incha allah dinañ leen jox information yi nga xam ne moo war ci promotion bi ñu war a def. Mm-hmm. Mm-hmm. sëriñ bi li fi nekk ci produit bari na lool li ñu fi war a mm-hmm. waxtaanee it bari na. waaye rek dañuy ñëw dugg ci li nga xamante mooy njabar. maanaam ki nga xam ni dañ koo njabar. nan la ko mën a xamee waaye tamit buñ ko njabaree ba pare li nga xam ni mën na ko yàq. sëriñ bi tey moom lañ fas yéene waxtaanee ak lan mooy njabar. waaw Mourou njabar daal li nga xamante ni. jëf ju bon la nga jëmale ko ci mhm. waaw maanaam jëf ju bon nga xam ne kii boo ko ko defaree mu yàqu. nga def ko ko. est am na ñoo xamante ne dañ lay xool. Mhm. xam ne fi ñu la bàyyee tuuti léegi nga egg fa nga jëm. Mhm. defoo leen waxoo leen. defoo leen waxoo leen. amaana sax bokkoo leen li ngeen liggéey. dëgg la moom da lay xool rek bañ la. ne kii dinaa ko yàqal. ñoom daal bëgguñu ko dem. am na koo xam ne da ngeen a xuloo benn bis amaana sa bàyyi woo xel ci xuloo bi mhm. sëñ Modou li ma la bàyyi ko xel de da waxante rek wax yu sew yow bàyyi woo xel ne sax li nga wax nii am na importance mhm. moom mu teg ko ci xolam mhm. mu xool xool am buntu bu la mën a jaar mu ne kii xaaral ma dem ci sama paa karamo ko bi ci koñ bi <laughs> su ma demee rek ma gaar ko léegi mu taxaw am na koo xam ne da ngeen a wax wax yu sew waaye laa da ngeen gel Mm-hmm. <laughs> sëñ Modou <laughs> wala da ngaa nangu jamaalante waaw nangu gelam mm-hmm. ngi gis mu dem yàq la yàq bu gaaw dëgg la moo tax sexera maanaam souvent sax ki muy dal du ko foog parce que du xam nga ñaar di bàyyi xel dafa ne amut ak kenn problème ah, ah olof nee na bët du gis la koy fat mm-hmm. bu ko doon gis du ko fat dëgg la léeg-léeg nga wax nit sax yu mel na mën waa man kan moom war a def loolu man defuma kenn dara man waxuma kenn dara fekk am na koo xamante ne genn góor mos na ma ko wax mos nañ toog mu ne ma man mos ma woon gëm ne ko jotalul dara dina la iñaane mhm. man ko am na de dëgg la yooyu nag moo fi nekk mhm. njabar bu dul jeex ci dëkk bi yàqal nit ñi seen alal yàqal nit ñi seeni i mhm. yàqal nit ñi maanaam seen noflaay yàqal nit seen jàmmoo am na kër yoo xamante ni jàmm fa amoon ñëpp nekk ci jàmm njibar dugg fa tasaare kër gi ba kenn du wax ak sa morom wallaay am na ay famille yoo xam ne Modou ñoo bokk benn ndey bokk benn baay ay famille bokk benn ndey bokk benn baay tey kenn du laaleeg sa morom. dëgg la xam nga loolu du jàmm. du jàmm wallaay. Mhm. te loolu njibar dong moo koy def. Mhm. te am njibar yu soxor yoo xam ne gaawut a toj. moo nit na la waa man xanaa daa amul ma ne ko am na sax. waaye fañ koy def mooy tax. xam nga tey ma joxe benn misaal. njibar gu ànd ak rey. Mhm. njibar gu ànd ak rey boo ko dafay naqaree toj. allahu akbar exemple tey. am na ñoo xam tey sexre bi ñuy def. daf leen di jaral ñu ne leen sexre bi pour mu jàpp. dangay ngay rey nag bu ñuul nga dem ba seeraas wala nga dem ba forage jënd fa nag bu quatre cent cinquante mille wala cinq cent mille. Hmm. ngir yàq doomu aadama bi ko def ci li def jël ca bopp ba dem gas bàmmeel wala dara suul ko fa. Hmm. sëñ Modou kooku pour mu maanaam kooku kooku nga xam ne da koo jabar jabar kooku. Uh-huh. pour njabar gi toj. il faut mu amaat nag bu ñuul comme ni nga ko amee yow rendi ko. Hmm. soo ko ñaan yàlla mu nangu. est-ce que xoolal loolu. xam nga yooyu moyen moo koy def. moyen moo koy def. léegi uh-huh. boo jàppee ne sa benn cinquante mille bi nga yor wala sa benn vingt cinq mille bi nga yor. Uh-huh. ma ko ma sango uh-huh. ndeem baax na <laughs> waaye mbir moo gis dafa am lu décanté situation bi. dëgg la xam nga tey su ma jëloon tey benn benn benn kii benn cadenas. cadenas boo xam ne toll na ni ah innamaa li gars yi naan innamaa. verrouillé ko benn porte. léegi nga war koo tijji nga yor benn caabi bu ndaw bu ko tijji. mënul mhm. nekk moom lañ naan boulon diis clé diis a koy tijji. ah ah dañoo dañoo nga daaj nag. Uh-huh. xam nga boulon diis. Mhm. boo ci yebee clé huit. noonu la demee. dëgg la am na ci yoo xam ne aussi xam nga loolu nga wax sax dama la jox misaal. am na uh-huh. yenn njibar yoo xam ne njibar ga daa foire Mhm. <laughs> dafa foire. waaw. Mhm. xam nga da gis boulon boo xam écrou moo jàpp. Mhm. seere ko ba mu ne kaj. yàgg fa ba xamaak ba nga yor kele di tourné muy ànd ak yow di tourné kele <laughs> bi ah? <laughs> yow souvent da ngay mujj rek dagg boulon ba. dagg ko ah yooyu gis nga noonu la mu war lépp loo gis. dafay am fu muy toll. sëñ Modou am fu muy toll boo ci jugul ni nga ci war a jugee di nga dem ba benn jamono njibar nga foire ci sa yaram nag. est te am na ñu bari loo ma leen dal dañuy toog di yàqule par ndànk-ndànk. nga dem fenn ñu laaj la cent mille franc nga ne ii daa cent mille de dama koy korkoral uh-huh. nga jékki-jékki cent mille tasaaroo xamul fu mu dugg affaire di gën a jàpp nga demaat fenn la cinquante mille uh-huh. ah, tamit day liggéey wax dëgg yàlla uh-huh. d' yàlla tax a def ah, waaye sarax ya koy yàq wala nag mm-hmm. yàgg yooyu noonu faaw xalaat si koy def naa la jox benn anecdote keroog wax naa ko benn waaye fii boo gisee affaire euh, yenn njibar yi. Mhm. wala yenn feebaru rab yi. man mhm. du ci maslaak nit. Mhm. li may wax nii ki ma mën a seede mi ngi nii toog faadal mi mënuma seede. dafa am benn at maam ku ma doon ñaanal ci wàllu tawat. am lu ma ko digal comme sarax mu ñëw ne ma def naa ko ma ne ko kon def nga ko xaw ma tàmbali. ma tàmbali jox ko saafara mu wér. ma tëdd ba guddi. mel rawaxaan dañoo ñëw ci man wax ak man dama eh ki nga doon ñaanal ñun ñoo ko téewoon uh-huh. léegi nag comme yow faj nga ko te saraxewut léegi sarax bi moom lañ teg sa kanam wan ma ñetti xar bu uh-huh. bu weex ak bu ñuul mooy xaru xonq yu maron yooyu uh-huh. ne boo ko defut danañ attaqué sa doom diw ci sama njaboot wallaahi jamono yooyu noonu jamono yooyu xar seerul seer yi keroog maa ngi jënd ñetti xar à cent quatre vingt quinze mille xar bu nekk soixante cinq mille ay xar yu yem. Mhm. Fadal moo ko jënd woon Seras. Mhm. benn xar mi ki ma ko jox mi ngi fii li ma dégg géejawaay gii. Uh-huh. kon li ma wax mat mat na mat na seere. mat na seere. Uh-huh. kon gis nga am na ci yoo xam ne ni pour nga def ko dafa am lu muy laaj. dëgg la. moo waral nag léeg-léeg nga gis ko xam ne dafa yombal loo ne yombut. Mhm. wala nga gis ku jafe loo xam ne jafewut lasaar looloo ci nekk. ñaare da yombal lu yombul wala nga jafe loo xam ne jafewul mais sëñ bi loolu doy na waar maanaam kon kon nit ki ngay faj mu war a génnee sarax te sa te génnewu ko mhm. yow mi koy faj maanaam loolu mën na ñëw ba këpp waat sa kaw wala sa njaboot bu baax allahu akbar sëñ Modou déggoo ñu ne njot njot mooy lan njot njot mooy li dox sa digganteeg faatu wala dox sa digganteeg tawat mooy lii nga bëgg a jotee sa bopp xam nga yàlla dafa fonk sarax dëgg la yonent yàlla Moussa waxoon na sama su borom digal na sama xeet ngir ngeen ren di nag mhm. ñu nag ñu commencé ko questionné ci nag ba nu muy mel. Mhm. nag bi ban couleur lay amee nag bi nangam. Mhm. kon gis nga loolu yéen di sallallahu alayhi wa sallam ne ana ibnu Zabihayn may doom doomu ñaari sacrifice yi. sacrifice ba doxante ci diggante Ismaayil ak baayam ak bi doxoon ci diggante Abdoulaye ak baayam. Mhm. kon gis nga yooyu yëpp. ay mbir la yoo xamante ne ay sacrifice moom moo ko moom moo ko tere léegi nag boo demee ba jamono boo xam ne da nga gis ko xamul dara taxaw ci télé li dem ci xelam maam di wax ci xelam daal man gis naa sëriñ soo xam man du ma offensé benn sëriñ parce que man jàpp naa ne ñun ñëpp ñoo bokk mel balkam yi dëgg la ñu naa ne ñoo ko bokk kon waruñoo xiiroo waruñoo ŋaay da war a jàppante yàlla tax mais nag aussi des fois dafa am wax yoo xam ne bu jugee il faut nga koy jéem a leeral lu ko mooy da dem ba da nga yàqal ñoo xam ne sax leen kii parce que am na koo xamante ne boo ne ko boo ren di baaxul rek moom jàpp ne waratul ren ci kaw suuf dëgg wala boo rendee sa mbir day jaxasoo wala nag déedéet daa fekk xamoon nañu rende rend moom sarax la boo xam ne diggante si yàlla dafa loo ko jinne dafa loo ko keneen da ngaa rend ngir jëmmi yàlla ñaan ci yàlla mhm. ndax yàlla moo moo sàkk jur yi ngir ñu ciy xéewlu yàlla ko wax ci dëgg la kon kay jëndam xar sëñ Mourou woo gars yi sekkee ne jawee nit jox leen ay sàmm jox leen pomme de terre soble ah ñu dem ñu dem xewlu ci. ah ñu xewlu ci <laughs> ñooñu bu ñu ñaanee du nangu mbëru. waaw ah, macha allah day nangu lool. dem nañ ba laax bii sax laax. <laughs> Mhm. dañ koo gaafal ba koo ko bëgg a sarax sax mu bañ. dëgg la. te du dul dugub akum soow moom tu eh, wolof yi sax dañu naa man xaw ma lu dul dugukum soow. Mhm, te dafa barkeel. Ah? Mhm. moo tax gis nga am na ci yoo xam ne ay dafay dafay taral nit. Mhm. waaw suñu moom macha allah kon mu ngi noonu njabar bari na yi nga xamante ni war nañ ko cee mën a wax. te bu ñu ci doon wax fii ba suba du jeex waaye xam naa dinañ ci indiwaat yeneen yoo xam ni. dañ koy gën a yaatal waaye sëriñ bi dañuy ñëw wax ci aaya bi nga xam ni moom laa junj sànq ci njëlbeen gi ñu fas yéene ko waxtaanee incha allah sëñ Modou aaya wa yansuraka allah nasran azizan moom la ñuy waxtaane tey waaye bi boo demee ci suratul fatxi di nga ko fekk mhm. naa fatax naa la ko fatxan mubinan ba ca nasran azizan nga xam nañ ko bu baax mhm. ñaare sax boo gisee nit ne la wa yansuraka allah nasran azizan moo tolloog waswasoor 818 mhm. loolu moom siiw na ci lool <laughs> <laughs> ñaare sax boo gis daan la bind ko 818 pour waswasoor xob xobam 818 boole ko moom di ko sangoo di nga am wërsëg lu lu wér la ndax yàlla ku mu dimbaliwul doo am. dëgg la. ah. Mhm. yàlla moo wax yonent bi naa leen dimbali dimbaliwul tedd. Mhm. kon naa la ibbi ibbi gu leer nañ ñëpp gis leen ibbi naa la. est-ce ma jéggal la say bàkkaar yu njëkk ak yu mujj waaye ma defal la ndimbal goo xamante ndimbal gu tedd la. Mhm. moo tax aay aay bu yéeme la boo xoolee wayen suraka allah nasran azizan. 818 la jàpp. sëñ Modou 818. boo ko xoolee ba ci biir dañ nga ciy génne ñaari bismillah yi te lépp lu waaye di tàmbalee bismillah yi day day day dem. Mm-hmm. xam nga bismillah yi 408 la. Uh-huh. mais gis nga baa googu alif goo xëcc ci kaw nga xam ne alif dañ koy xaw a mel nag alif max fii dañ ko nëbb. Mm-hmm. boo ko xoolee muy 409. est-ce que. 409 boo ko multiplié par baawu bi asma la 2 yi mu joxaat la 818 moo tax war nañ si wayen surakallah ismul azam la. Uh-huh. boo xoolee tamit wayen surakallah nasran azizan 19 xaraf la. tolloog 19 asa arafu basmala yi ba tey mhm. waaye boo xoolee wayen surakallah nasran azizan 818 moo tolloog 409 fois 2 encore 409 dañu ko génnaat ci tur yàlla bi nga wax tawaabu yàlla mi nga xamante ne mhm. mooy nangu ak tuub képp koy taxaw di tuub mhm. yàlla rek moo ko mën a nangu dëgg la kon gis nga li nekk ci biir wayen surakallah nasran azizan ba tey sëñ Modou wayen surakallah nasran azizan boo ko bastoo jël waaw yaa nuun saad ra keef alif laam laam ha nuun saad ra alif ayin zay yaa yaa zay alif mhm. ba ñëwee ba ci yaa gi mujj gi nag yaa un nga indi mhm. mu jox la 1528 mu toll ak fa buhita allazi kafara <laughs> kon gis nga. Mhm. ba tey boo jëlee say jaalallahu baada usrin yusran mhm. li ñuy wax walxas. walxas. walxas waaw. mu 1636. Mhm. walxas boobu boo ko divisé par deux moo la joxaat 818. même salaamun qawlan min rabbin rahim bi ñu doon jàngale keroog. boo ko jëlee ci adadu penk bi 818 la. est-ce que. kon gis nga li mu jàpp ci adad yoo xamante ne mënoon nañ ci waxtaan fii ba suba. waaye dañ ci joxe rek. moom gars yi dañuy wax ne diggante keef ak nuun mhm. loo ci ñaan mu nangu tey wayaan sura ka keef la mhm. lu nekk ci digg bi allah mhm. nasran nuun mooy wayaan suraka allah nasran moo tax ñu ne allahu kun la allahu kun mu nekk 136 136 136 sëñ Modou 136 boo ko xoolee Mhm. xam nga man samay wax day leer. nga am booy sekkeen yoo xam ne dañuy yóbbaate quoi. <laughs> mbaadu loolu laay ba ñu may ñu may ñu may mhm. tituwaayee. Mhm. ak booy jawee nii. <laughs> waaw ñoom loo yàkkam di nañ sëñ Malick. loo wax ñu critiqué jum jum gàtt. <laughs> ah bëgg a yab. kéemaan la. xam nga 136 yooyu allahu kun moo tolloog mu'minu tur yàlla bi ñuy wax mu'minu. mu'minu mu'minu. la wax na bu garaaw la. danañ ci mës a ñëw di ci waxtaan. tur bu yéemee ngoog te gars yi bàyyi wuñ xel. allah koy liggéey di nga am ngëm di nga am kaaraange. Mhm. allah. su ko defee boo dee liggéey wayan soraka allah nasran azizan 136 fois. 136 mhm. fois. loo si ñaan yàlla yàlla dina ko defal incha allah. Mhm. da ngay def 6 def 30 def 100. boo defee 6 ñaan sa soxla def 30 ñaan sa def 100 ñaan sa soxla. waaye boo jëlee wayan soraka allah nasran azizan nga liggéey ko huit cent dix huit fois. Mhm. ba pare nga liggéey bismillahi quatre cent neuf fois. Mhm. ba pare nga liggéey yaa tawaabu quatre cent neuf fois. nga defaat wayen suraka lan nasrani huit cent dix-huit fois nga xam ne huit cent dix-huit adadu wal xas nga koy am adadu mille six cent trente-six waaye wayen suraka moom ngay tijjee huit cent dix-huit mhm. def bismillahi quatre cent neuf def yaa tawaabu quatre cent neuf tëjewaat ko wayan surakallah 818. Modou ñamal loolu nga xool. mos xam naa ne <laughs> say poos fokk na. Mhm. ndax xam naa ne ci mariage nga jóge mhm. ah. <laughs> la boobu mooy baax baax. Ah. Mhm. ba tey. boo jëlee suratul fatxi muy inna fataxnaa laka fatxan mubiinan. boo bind nga dugal ci wayan surakallah nasran azizan. nan koy bindee. wayan surakallah nasran azizan. boo ko bindee ba suratul fatxi mat nga teg ne suratul fatxi ne. nga bind wayen surakallah nasran azizan 818 à part mhm. soo paree nga boole lépp ut xob yi war su soor 818 xob def ko ci biir uh-huh. def ci parfum maawul werd bu bëri mooy rey xet gi ah mhm. am na loolu ñuy neexalee léeg ay kii yi sax essence banaan essence banaan uh-huh. nga def ko ci Mhm. sëñ Modou jàngat lu neex moom. tubarkalla waaw maanaam lu mu gën a forox gën a neex. <laughs> est-ce que <laughs> macha allah. ba tey wayal surakallah nasra azizan. Uh-huh. boo ko bindee da nga koy dugal ndeg bisimilah rahmaani rahim comme ça nga bisimilah rahmaani la quatre mots la. Uh-huh. wayan surakallah nasra azizan quatre mots la. Mhm. da nga naan bismi wayan suraka. allahu nga indiwaat allahu. Mhm. rahmaani nasran rahimi azizan nga xool. da koy dugalante. nga dugalante. Uh-huh. bismi wayan suraka laahi allahu rahmaani nasran rahima azizan noonu koy bindee ba ma 19 fois mhm. fukki yoon ak juróom-ñeent nga def ko saafara mhm. boo ko defee saafara am na garab gu ñuy wax xoos garabu xoos xoos sal mhm. xob yi wala nguur xas yi gaa yi xam nañ ne àlluwaam sax àlluwa xoos loo ci bind day nangu <laughs> macha allah utal xob yi wala xasu xoos nga def ko ci def ci parfum yi neex di ko sangoo di zikkar bisimilah rahmaani rahim 818 wayen surakallah nasran azim 818 nga xool. Mhm. tubarkalla kalo baa ngi noonu. Mhm. boo ubbeekuwul. <laughs> caabi dootul tijji buntu. <laughs> est <laughs> loolu kado bu neex la. kon sëñ Modou foofu laa yemale tey wan surakallah nasran azizan mhm. di ñaan lépp lu ci waay jël yàlla na barkeel. Mhm. a xoje. Mhm. yoo xam nga léegi da lay woo ne dama doon ñaan ndigal ci li nga joxe man joxe naa ñëpp ndigal. ci lépp lu jugee ci sama xol bi jëm ci xolu jaam ñi. joxe naa ci ndigal. macha allah tey ñaan yàlla nag ku ko jëfandikoo yàlla nga ci am barke. incha allah allahumma amiin ñuy wax ma stata'tu wa ma tawfiqi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aditu anil mawla mbokk yi cabinet Sajaratu Touba ngeen fekk fa Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal adresse bi nag benn la ñu nga ci Kër Massar terminus su 53 bi numéro téléphone bi di 77 539 19 04 wala 77 507 yéen ñi nga xamante ni da ngeen a jaaxle woon ci xeetu feebar yi moo xam diabète kyste fibrome arthrose impuissance sexuelle maanaam tëlee ci wàllum sëy moo xam prostate hémorroïde bi feeñ ak bi làqu maladie dermatologie sa der bi yaram bi amee jafe-jafe am na fa tamit massage automatique ba ci massage manuel Serigne maa liggéey mi yàlla baaxal laa biir lool ci doomu aadama yi ne ma sa Sajaratu Touba bi képp koo xamante ni da am jafe-jafe ci wàllum këyit maanaam nga tukki wala it nga bëgg a tukki wala it nga bëgg ay ay muslaay képp koo xamante ni tamit cet dala sonal rawatina nag nga bëgg a ubbeeku mbaayit nga bëgg am kaaraange maanaam aar sa bopp waajaa ngi nii Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal dina la tàggat ci wàllum xam-xam maanaam secret yi nekk uh, ci téere alxuraan yi mën nga faa yegsi ngir wecceeku ko kon boog mbokk yi adresse bi benn la Kër Massar terminus 53 cabinet Sadiaratou Touba ca Kër Massar terminus 53 ngeen fekk fa Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal mbaa ngeen woo ko ci 77 539 19 04 wala 77 507 kon mbokk yi xarit yi yegg leen fa seen aaja faju